salaamaaleykum maa ngi nuyu axlu làmb bépp waaw di nuyu diaspora bi yëpp waaw nuyu àdduna daal ñu nuy bëggee suñu fans yi xam nga di ziare gars yi ñi ma toogandool fii sama gars yi ku si mel ni boggal ñu ngi koy bëggee mojop ñu ngi koy ziare caatu den même chose ak yeneen sampion yi ñëpp ay Siteu ñaari Siteu yi di leen bëggee bu baax a baax a baax waaw di la bëggee yow Omar nga def déplacement xam nga ak fa nga jógee ni mu soree Grand Yoff <laughs> loolu yombul quoi waaw di la bëggee di la jox sa wàccuwaay bu baax a baax a baax waaw di la siyaare fi mooy dénn birab ndaw waaw dénn moom waaw gars yi ko xam bari na quoi amaana bërëbu dalluwaay la xam nga te ñun ay ndaw lan nekk ci làmb xam nga waaw màggee fii yaroo fii waaw ba toll niñ toll waaw yàlla def nag ñu bëgg ñu suivre benn affaire muy lan muy làmb waaw suñ boroom xiirtañu si quoi waaw. su may béré ji fii laa jógee dem làmb ji waaw muy arène nationale muy Ibamar fu ma si mënti dem daal fii laay déparé waaw awma dul déen daal. waaw noonu lay demee xam nga rek waaw bu la maanaam bu la convoqué trois heures wala trois heures et demi da fekk euh, ba deux heures de demi fekk la foofu normalement midi añi lay pere boo añi pere midi nga xam ne balaa deux heures rek day fekk nga dugg esaat daaj sa daaj waaw kenn du la tàgg si dara daal ah amaana xam nga ñun bëri ndaw maanaam kase bi li ñuy feeku boo ñu daggee rek dara du si des quoi duñ jot reliquat daa maanaam buñ jotee reliquat li ñuy xaar dafa bari xam nga il faut nga am loo jox famille bi xam nga ak ñeneen xam nga làmb moom daa gudd daa am ñu si ñu si war a lekk ñoo bari quoi waaw noonu lay dem ak ménagère bi lu mu war a génne da koy génne ak sa gars yi ngay àndal démb xam nga xam nga gars yooyu tamit dañuy sonn si làmb ñi ngay àndal démb ak bërki démb ñooñu loo am muy lu néew ak xam nga ak lu bari nan si lekk koi waaw làmb moom loolu mooy tax nga àgg fi nga bëgg a àgg ñi si war a lekk buñ si lekkee rek suñu borom da lay defal jaamu quoi waaw. waaw maa ngi nekk équipe de école de lutte Père Khalifa waaw école de lutte Père di bëggee gaa yëpp ñoom Yaxi Bambilor ñoom Garo Gar xam nga ñoom Sadio 50 waaw di bëggee gaa yëpp ñoom Birima ñoom Bédi di siyaare ñëpp daal di jox ñëpp wàccuwaay bi. waaw écurie boobu dal jàmm la quoi. Mm-hmm. waaw joto damaa jaay guy murit waaw man Tëngéej fa laa débuté quoi Tëngéej xam nga fa defe lépp fa laa ute licence waaw après fi laa si écurie bi si la doxatul ma def démission ñëw i ko deli Xalifa Thiaw quoi fa nekk ni instant yi mm-hmm. non écurie bi instant boobu dafa dem ba benn instant ku si nekk daan nekk sa ruq di entraîner écurie bi gars yi dajalootuñ comme mbolog mi daa def entraînement écurie yi kayiti écurie yi chaque saison ñu renouveler ko xam nga loolu lépp gisatuma ko quoi léegi nag may lii dalay tardeel bàyyi ma dem benn écurie loosi foofu nekk fa quoi. non wax dëgg maam yàlla ga ay borom baax ñoo fa nekk. waaw ba ma fay jugee moom indiluma benn jafe-jafe quoi waaw damaa waxtaan ak ñoom waaw ñu bàyyi ma si lu nice quoi xam nga lu nice laa fa deme woon quoi waaw ñu bàyyi ma si nicement bi. Mhm. waaw secteur bii moom waaw dama ko toj moom waaw jot na ma mbapat jot na ma def ay tournée de waaw noonu lay demee kay waaw dem naa mbéy dem kër mbir dem gorom ay kër muse yëpp dem naa fa waaw zone bi moom toj naa fa quoi. Mhm. ay gala de lutte ay mbapat waaw yooyu noonu waaw ay combat nommé combat nommé moom li ma ko def fii bariwul quoi waaw mais mbapat daal wër naa fii daal zone bi daal wër naa fi mbappat mhm. waaw. waaw jël naa fi ay trophée de waaw jël naa fi ay drapeau ay jël am na waxtaan moom xaalis lan tegoon cent mille lan tegoon quoi waaw ma jël ko boobu mbéy la woon waaw. Mhm. waaw bi maa ngi ci dugg 2016. Mhm. waaw boo wax léegi ma def euh, mais 2017 bi si laay soog am combat waaw mais 2016 bi laa am licence bi. ba léegi ma def cinq combats arène waaw waaw cinq combats yi boobu maa ngi def trois victoire benn match nul ak benn défaite waaw match nul man ak Bour Sine la woon boobu Iba Mar la woon quoi Prési moo ko tëggoon waaw boobu ma defoon match nul non dañoo match nul kenn daanul quoi uh-huh. kenn gañewul par avertissement ah. jël xam nga rek dangi des fois gars yi da ngay ree ba tas gars yi ngay ñëw pour bëre ñuy daw quoi te doxewul noonu ah Bour kon mu wane ka ama saaliw ah Bour Sine du ndaanaan dara <laughs> Bour Sine da daw rek waaw non kuy daw xam nga rek kuy daw même wane mu daw boo dee bëre moom muy daw sax sa la victoire du sotti foofu de waaw waaw mu samp niil trois victoire yi maa ngi daan baypal bu ñàkk rob waaw daan boloo waaw daan leget gi quoi mhm. am ni ndogay moo ma daan bu Cees waaw non Cees la ma daane waaw mu daan ma quoi mhm. combat bi dama ko dóor xam nga dóor alter ka xam nga xelu xale bi topp ma quoi ak fugu bi waaw mu nax ma quoi léegi bi ma naxee noonu si la ma dóor mboot yaa ma gën a xam noonu la combat bi jeexee quoi waaw mais daan na daanaan quoi xam doomu deen ku ko xam-xam daanaan la waaw te bu ñëwee làmb day fecc waaw day fecc lu neex bëre lu neex waaw moom daan na daanaan quoi benn defet boobu laa musaam sama kër te di ñaan yàlla mu yem foofu quoi. waaw ah, noonu la demee. non bàyyil ma dugg dagaar def naa fa benn sotti daaw te dama war a confirmer quoi man li may xaar mu ngi si kanam waaw gune bu ndaw laa juddooguma quoi man naan damay soog a dugg ci làmb rek waaw damay soog a dugg ci làmb quoi te waa Dakar laay waxal gars yi nan ma jël gars yi lu ñuy moytu Omar nan jël Baye Fall bi. waa gars yi dañoo war a jël lekk sama avance avance bi avance bi day wër gars yi nañ ko jël lu ñuy xaar waaye sama ménager damay damay damay wax benn instant ni ma gars yi avance bi mu ngi wër mais moom du ma sital ay tur quoi xam nga rek maam ñaaw siis waaw maam ñaaw waa di ko siyaare bu baax moom it tey jàpp si ñu combat di ñu doxal ay komba waaw di sonn quoi waaw moom borom baax la quoi bu ko yàlla fay xolom lu baax rek lay am moom manager bu jafe si manager yi la quoi ndaxte da ngay am combat tey moom mu ñëw taxaw sa bàkku sa day ñëw taxaw mel ni yow si ñuy bàkku la àndaale. taamaana yow manager yi ñoom yeneen manager duñ coobe noonu sax te moom moom li muy def moom dafa raar quoi billaahi billaahi walaay da lay gungee di la soutenir ba nga bére ba pare mu ñëwaat sa gàlle waaw tàggoo yow si jàmm. waaw bu loolu weesoo waaw di ziyaara tamit sama garaam Maajoor Mbay waaw moom damay jàppale bu dul làmb ak di làmb yëpp damay jàppale damay jox xaalis bu bari damay jox xaalis bu bari te combat damay jëlali kaar waaw di ko ziyaare bu baax a baax a baax Maajoor waa di la ziyaare di la amal jaama ah. waa sama beneen garaam mooy tamit Moussa Kane Mbay moom it moom noonu la koy defe da ciy zone barki Sëñ Tuubaa damay jox xaalis bu bari comme ni ko maaj di defe noonu la koy defee damay jox xaalis bu bari ni ma mbër préparé la waaw dañoo bëgg champion waaw te ma amee fu ne lay dugg moomit di si jàpp quoi ku si mel ni Pambay tamit moom it da siy jàpp waaw comme noonu la koy defee rek dañuy jox damay jox xaalis bu bari ni mbër préparé la waaw ku si mel ni Papa njaay waaw dafa taxawoon waa sama combat man ak Sabala 2 mais combat boobu amaana damaa jékki-jékki rek gis mu yàqu quoi sabala dugal ko si benn groupe ama groupe ya daali bi si la ko dugal ma ne kan moo yàq combat bi mais nangu maa leeral man combat bi ba léegi foofu laa si toll non sabala sabala sabala moo daw sabala ba combat bi taxawee amatul jàmm fu ne muy dugg di laajte sabala sabala tapet la sabala moo daw combat boobu xam nga ne doomu den du lekk avance benn di daw. moo sabala sabala Amar Saliou sabala tapet la. moo sabala tapet la sabala ba mu jëlee combat bi fu ne lay dugg di laaj. di laaj di di leerlu samay mbir ak lu ne mu def ko man combat man man maay nit koo xamante ni man ma xisee ba jël combat du ma am faneen fu may dugg di laaj. du ma tàpp sa YouTube naan damay xool say combat man du ma joobe noonu. man li ma gëm li ma gëm mooy lan. def matin soir si bi man loolu laa man loolu moom laa gëm bu jouru combat li ma liggéey ma indi loolu mais pas may laajte fii kii ba xam lii lay bëree non man duma ma joobe loolu. ah moom day sabala day bi mu duggee si groupe bi dani ma promoteur bi ne da nga dul mobiliser quoi ma ne ko sabala man li may mobiliser yow doo ko mobiliser man boo dee xool dénn ñi ko li ko ëmb si dëkk moo bari bu si mel ni kañak banóoba géej kër simbiri bambilóor déeni ñaay xam nga gorom gorom deux gorom xam nga déen boo dee xool li ko ëmb moo bare tund janweer wi yëpp su may béree dañ fi dañuy duy ay kaar ba mu fees dell ndax kan doomu déen xam nga waaw di présenter seen gox quoi waaw xam nga looloo tax tamit ñuy def déplacement ñëw waaw ñëw si combat bi. mobiliser. ah mais mais loo si gis si ku bëgg a daw. <laughs> moo daa bëgg a daw rek. mais yàgg yàgg mu jëloon ko léegi nag mooy gën a sedd si moom quoi. maa ko dàq xeex foofu sabala maa ko dàq xeex maa ko daax bëre. moom moo ngi may sembi seetaan naa ko. waaw maa ko maa ko dàq xeex maa ko dàq bëre waaw bu bi ñëwoon ma jël ko maa ko maa ko dàq xeex xanaa yow seetaanoo samay combat man boo tàppee bu nga xool moo sabala yow sabala tojul fen man dama man xooluma ko sax ndaxte moom sabala boo dee xool ñaari combat la fi bëree ñaari combat benn victoire benn défaite maa ko gën a baax palmarès fop man ak sabala du làmb man xam nga lan lan mooy làmb bi Omar Saliou ay mbeytin mbey ay mbeytin yi di bëri wax laa bëgg a jël mbeytin 2 waaw mbeytin moomu laa soxla waaw organ laa bëgg bëreel barki sëñ Tuubaa moo gaa yooyu gaa yooyu ku si mer nga ma ma ñëw boo ma daan la waaw mbeytin ñëwal ñu bëre yow laay waxal mbeetin waaw bokk nañ ko dëggali man mbëri grand combat la Oumar Saliou maa ngi si yoon bi bire spécial laa jógee après lu may amaat incha allah grand combat waaw noonu lay demee maa ngi yoon bi non làmb boole nañu moom fi mu non sabala maa ko raw si làmb waaw sabala maa ko raw si làmb waaye bu ma tontoo xam ni Baye Fall bi la fekk rek maa ko raw si làmb foofu tabala li ma bi ma bi may toj tojul tabala boo dee xool ñaari komba la fi am def fi dara def fi dara na liggéey ba si kanam man am naa cinq komba am naa cinq combat cinq victoire benn défaite benn match nul maa ko gën a baax palmarès fop bu jëflante woon day sabala est-ce ñeme naa lekk sama avance sax sabala ñemewut lekk sama avance non ñemewu ko <laughs> ñemewu ko de waaw man damay xeex damay bëre yaa xanaa xamoo doomu den Baay Faal bi sa dénd biram ndaw <laughs> ah sabara du tus ama saalo maa gën a gaaw loxo maa gën a xor loxo waaw man sama combat yëpp kaaw xeex rek bu dul xeex bu mala daanewul xeex lu ne bëgguma waaw naa la dóor ba nga këpp wala ma nga kii ma jàppale sànni lu fële. non Forouz moom sama gaañ la Forouz <laughs> Forouz di nga Forouz bu baax moom moom sama gaañ ko quoi Forouz Forouz moom damay ma ay contact waaw saa may préparé combat damay may ay contact waaw mais ndaanaan la nag ndaanaan la ko Forouz <laughs> waaw. waaw loolu la quoi mais moom moom sama gaañ la quoi di ko nuyu bu baax. waaw ku si mel ni tamit boo yëmbal. Ah, am na combat kon bàyyi ma bàyyi mu sedd. ay ay pokala ay pokala balde ñooñu. ay combat la. man damay kaaw man ñu ñu saf ñi laay ñu saf ñi laay wër. man man boo lay xool tey jii nii bëgguma combat bu yomb quoi man bëgguma ku mënta xeex dama bëgg ku mën a xeex comme man ma yen ka lu lu metti lu ko góor mu seen laa ko yen <laughs> noonu lay demee nag waaw ku si mel tamit ay caatu piyal bu ñëwee ma may sens caatu piyal mën nañoo bëre de waaw ma sagal ma sagal ma ko tuuti quoi caat dama koy sagal tuuti waaw kenn mësu kenn mësu kaa laaj kee dama koy sagal tuuti <laughs> man seega man daanaan lay wër quoi waaw ndaanaan lay wër xam nga dama di ndaanaan tey jii nii boo doo béré koo xamante ne ku dul ndaanaan da nga koy yàq waaw laa quoi noonu lay demee nag mburu tëngee waaw am na ñoo xamante ne damay dinaa bir ak ñoom mais am na ñoo xamante ne du ma ak ñoom quoi ku si mel ne ñoom Ronaldinho ñooñu samay waay lan quoi ay Ndomar ñooñu moom samay gaañ lan ay Karbala ñooñu yaa ma gën a xam quoi waaw. waaw Dakar moom man moom xam nga te boo dee xool benn instant mbër yi boo leen di laaj sax. dem na ñu ni kii damaa xaar ba pare affaire yooyu soog may laaj quoi man moo tax ni benn instant bëggumay laaj quoi bëggumay laaj ah. yaa xam bawal ah, mooy kan sax yaa xam bawal xaw ma ko man ñu saf ñoo lay wër waaw ak ñu am tur yi mais mais mais man nag du jël ko amul tur de. Hmm. waaye wa waaw promoteur bu ñu ko seet seet bu ma seet seet tamit. ma jël ko de waaw man maa gën a mer Fernando man man si ma sindil si ma sindil laa jóge nii instant nii tende tende tende tende fal instant bii nii waruma quoi instant bii nii nii nii nii may wax ak yow dem Dakar jël indi fii bégal supporters yi lin meroon lin meroon damaa bëgg ñu kontaan sama sama combat bii di ñëw nii te loolu man laa yóbbaale stade quoi incha allah man daaw rek saison daaw bi. Mhm. waaw benn laa jot a bëre. waaw combat yi xam nga rek des fois ni manager bi moom dina si dox lépp lu mu war a doxe quoi mais benn instant xam naa tamit promoteur yi ñooy am retard xam nga promoteur yi benn instant dañuy yéex quoi si monter combat yi. waaw di wax promoteur yi nan ma seet si waaw promoteur nan ma seet man damay mobiliser damay mobiliser ay kaar ay kaari laay dugal stade waaw promoteur nan ma seet si instant yi pare naa adversaire bu ma jox waaw pare naa pour jëflante moom incha allah. Mm-hmm. waaw di santaat di santaat bu baax a baax a baax suñu père Omar Gueye junior di ko sant bu baax a baax moom day sonn suñuy komba da siy sonn bu baax di si def loolook loolu di si def xaalis bu bari Omar Gueye junior waaw di sant ku si mel ni Bogal waaw di ko sant bu baax a baax a baax di ko sant bu baax moom amuñu fayam moom ku si am komba day bàyyi ay yiteyam nekk say yite nekk sa yite komba bi waaw di si dem fu ne. pour yow nga am jàppale rek billaay wala di di si yëkkiwaale xaalisam tamit di ko si def kooku amuñu fayam waaw moom du làmb moo ñu boole moom yàgg naa kaa moom yàgg nañ yàgg nañ ab taamu góor sax man la ko tuddee waaw xam nga kooku tey du làmb kooku bu dul làmb sax yéen a ngi kiwante waaw waaw di jaare tamit caadu den moom it waaw di ko bégee bu baax a baax waaw waaw ku si mel ni unique bu kayaar tamit ak Henri ak euh, Birima ñoom it même journée lan bokk quoi waaw di ziar tamit loo Babacar waaw loo ku ma lakkal ku ma sonal moom moom di ka ñaanal jàmm rek jàmm si moom ah <laughs> loo borom baax la quoi bilaay waaw di sant euh, Père Ndong tamit moom it moom ay combat mu siy jàpp mu siy gën a jàpp mu si jàpp mais mu siy gën a jàpp quoi waaw Pambay moom it si politique lay yëngu di ka ñaanal jàmm fi mu bëgg moo fa bëgg àgg moom amagul dara de mais mu ngi jàpp quoi waaw mu ngi jàpp bu baax a baax a baax a baax waaw suñu grand tamit Madior Mbaye waaw moom it da siy def xaalis bu dul jeex billaay day def di def ba nga ba nga naan lool la la billaay walaay te kaar yi danaan jël leen kaaru leen neex suñu grand tamit Moussa tamit noonu la koy defee billaay walaay waaw sama sama coiffeur kii Ousmane Mbaye moom moo jaar fii quoi. moom moo a daggalu garaaw lii waaw xam nga rek moom moom war rek la man quoi ndaanaan la si wàllu wat noonu lay deme waa def moom it ñu ngi koy béggee moom it waaw def ñu ngi koy béggee bu baax a baax waaw moom day sonn suñuy kombaa da siy sonn bu baax ñu jox xaalis bu bari waaw ku si mel tamit ndongo ñu ngi koy béggee moom it moom da siy def xaalis bu bari moom it ndongo faal waaw di la siyaare bu baax waaw di siyaare waa lamb waa ñokket hmm? waa Rëbës waa Jamaïque lu si mel ni Nokia ñoom it dañ siy sonn quoi Nokia gaan góor a seek maar gaa dañ siy sonn quoi boo amee làmb duñ tal nelaw duñ duñ def dara waa ku si mel tamit sama géwal bi Tamour Masoor bi àndo yi moom it boo amee combat da lay ñëw tuusal lu neex lu garaaw fu garaaw lay fële waaw da tuusal daal ba boo fa jógee daal amaana sax duñ laaj mbër mi tëggkat ba lañuy laaj noonu lay demee di ko ñaanal jàmm moom it moom ku baax la quoi waa di di sant waa Rëbës tamit waa Rëbës waaw sama mafia bi waaw waa Rëbës di leen sant bu baax a baax a baax waa dal jàmm sama gànge ah <laughs> dal jàmm bi maa ngi leen di béggee bu baax a baax a baax ah di siyaare ñëpp di siyaare maasis dëkk bi yëpp di siyaare tamit waa fan si këlam mbëri déen yi waaw di siyaare 100 pour cent mbëri déen di ziare ñëpp daal ma kenn daal ku lim juum waa kañak waa bënnoobo waa gorom waa kër simbiri waa waa déeni bàyyi ma kenn daal maanaam waaw waa di di lancé waa tamit beneen message suñu maire bi ngeen jóob moom dañoo war a jàppale suñuy komba da war a jàpp bu baax ñun saa buñ demee région bi la ñuy présenté wu waaw saa bu demee commune bi la ñuy présentable comme da see war a def comme ni muy jàppalee ñeneen ñi affaire bi nit ki da nga koy jàppale avant muy am tur mais du affaire bi day am tur rek ngay soog a nekk fii jàppale fii nit danga koy jàppale bi mu bi muy bi muy daana ko jug nga koy jàppale bu demee nag ba tollu fenn si làmb boo ko jàppalee foofu dina safe foofu mais ngeen jóob ngay jàpp suñuy combat bu baax a baax ñu ngi lay ñaan loolu yow la fi yàlla teg yow yaay suñu maire yaay suñu lépp ngay jàpp suñu combat waaw di la ñaan loolu bu baax a baax a baax waaw di santaat gaa yëpp Omar Sall yooyu ñu ngi lay bégge de ah waaw nga déplacé jugee ba Grand Yoff xam nga it amuñu sa fay waaw te am nga dénn nu mu yaa ma gën a xam waaw dangay toog yaa ma gën a xam ba découragé mais yow bàyyi faal nga quoi di la ñaanal jàmm waaw di la ñaanal salaam ok waaw sama yaay tamit sama yaay waaw moom dafa sonn si ñun quoi waaw di ka ñaanal jàmm di ko ñaanal jàmm bu baax a baax a baax li bëgg moo ko xam waaw sama yaay bëgg naa ba dem ba yóbbu ko màkk billaahi mu siyaare kaaba gi waaw sama yaay ku ñu yërëm la daal maanaam waaw te dafa dafa muñ dafa sonn dafa sonn amaana dafa sonnoon quoi waaw mais tey jii nii di ka ñaanal yàlla mu dem ba fekk suñu njariñ billaahi di ñaanal sama waajur bu góor tamit yàlla xare ko àjjana waaw di ko ñaanal bu baax yàlla xare ko àjjana maa lay ziar Omar Saliou maa lay jox sa wàccuwaay di nuyu waa OSTV Omar Saliou TV maa lay nuyu di la jox sa waay di nuyu sama grand yi ma fi nekk ndel ak sama mbokku mbër yëpp ci mel ni boggal moom day sonn ci ñun daw na suñu mag baax la doomu den cité bu den ñaari cité yëpp ak sama mbokk mbër yi nekk ci den biram ndaw bi yëpp ñoom ñëpp grandeur jam teere ñoom ñëpp maa leen ziare ak suñu grand yi nga xamante ne nekk ci dëkk bi yëpp rawatina suñu koñ fii ngéwél waaw maa ngi leen di jox nag benn annonce boo xamante ni am na fi Thiatou Déne dafa am combat le vingt cinq décembre maa ngi ciy woo Déne Biram Ndaw yëpp di leen wax seen doom seen rakk seen xarit do Thiatou Déne am na combat le cinq décembre maa ngi bëgg yéen ñëpp nag ngeen jàpp si bu baax baax baax baax Déne bu ndaw Biram Ndaw wërngal këpp ak li ko wër Déne nord sud gorom 1 gorom 2 Bambilor Kañak Kër Simbiri Déni Géej yëpp tund jandeer bi yëpp maa ngi leen ci woo di ci woo suñu autorité politique yi ku ci mel ni sama papa Omar Gueye junior kooku sama papa bopp la maa ngi koy woo ci combat bi dama bëgg mu jàppale moom bu baax a baax a baax a baax Pape Mbaye grand Pape Mbaye Pape maa ngi lay woo ci combat bëgg naa nga jàppale ma ci bu baax baax a baax a baax sama grand Doudou Sali Diouf maa ngi ciy woo suñu père Ndongo saay ak monsieur le maire Ndiène moom ñun dañoo bëgg muy jàpp suñu combat. parce que tamit gis nga ndimbal ci sa woyu bay ci sa wewu tànk booy dimbal da ngay dimbal ñi nga xamante ne ñoom nga dëkkal soo génn ci biti. parce que dan ni ko gërëm te say bokk gërëmul yaakaar naa gërëm boobu amul solo te monsieur le maire Ndiol ñun du ñu jàppale wallaahi. du ñu jàppale te dañuy génn fii di dégg xam ay mbër yoo xamante ne nii ñun ñun ñoo leen raw ci côté bépp moo leen di jàppale ñooñu di dem te ñooñu doomu jàmbur la te ñun ñooy ay doomam ñoo bëgg mu nuy jàppale te yàlla tax parce que fii comme ni ko doomu den sama grand waxe fii moom la fi yàlla teg kon nay jàppale ñun ñi nga xamante ni moo ñoo ay doomam dañuy dem di bëree ji billaahi du benn yoon du ñaari yoon mais du ñu jàppale gis ñu dimbalam dara wax dëgg yàlla suñu père la nag xëy na annonce bi àggul woon ñun nag ñu ngi koy woo mu ñëw jàppale ñu bu baax a baax a baax di ñu jëndal ticket yi di ñu luyal kaar yi ñu koy may suñu supporter yi ñu dem xama ànd ak ñun dem supporter ñu. maa ngi woo zone bi yëpp ñu ñëw jàppale seen doom caatu den le 25 décembre incha allah di woo tamit maa si si dëkk bi yëpp di commencé si sama mafia lamba gi ñoom maa leen bëgg bu baax a baax a baax waaw di leen woo ñu ñëw jàppale seen doom waa dal jàmm waa rëbës waa entre maa leen woo bu baax a baax a baax baax ci sama combat bi maa ngi ci woo waa HLM déggoo ñoom ñëpp maa ngi ci woo ngéwél bi yëpp ngéwél bi ma dëkk ak li ko wër lépp den biram ndaw bi kaw nga xam nga waa ville maa leen ci woo waa cité imam Jibril Diagne ñoom ñëpp maa leen ci woo baax baax baax ak suñu grand yëpp ku ci mel ni Papa Ndiaye Pape Ndiaye Mbaye ko suñu grand bi sonn ci ñun la ak Ablaye Ndiaye boggal ñooñu ñun amuñu seen fay ñooñu wallaahi buñ bëggee làmb ba tey ñoom la da ngay yenn saa da dem ba da ngay découragé mais boo tourné di leen gis ñoom ni ñuy sonné da ngay am courage xam nga doo bëgg ñu mu ñoom ñu wét si quoi. moo tax bëgg naa ñoom ñëpp incha allah ñu jug jàpp ci bu baax a baax a baax a baax a baax ak suñu grand Ndongo Fall maa ngi ko ci woo sama grand majoor mbay xam Moussa Kane Mbaye ñoom ñëpp daal maa leen ci woo Ousmane Mbaye ñoom ñoom ñooy suñu ay anciens lutteurs Ousmane Mbaye ñu ko daan wax Tibles ak Massala Diouf ñu koy wax Boy Soja ak suñu grand yi xama ñoom Dawda ñoom Surum le ba jolli ñoom ñëpp ñoo ngi leen ci woo baax a baax a waaw ñu jàppale ñu incha allah gunge seen rakk seen doom caatu den incha allah yàlla suñu borom may may ñu ndam bu sedd guy di ko ñaanal tamit sama mbokk bopp bàcc seeraas moom mooy bëre grand combat bi. mu ngi ci war a daje ak Balla bu Pout maa ngi koy ñaanal yàlla suñu borom may ko ci ndam bu sedd guy ak sama mbokk yi fay bëre yëpp ku ci mel ni unique ku ci mel ni Birima bu Bambilor xam nga ku ci mel ni sama doom day Henri maa ko ci ñaanal bu baax a baax yàlla suñu borom may ko ndam waaw maa ngi bëgg ñëpp di sant ñëpp. waa adversaire bi li nga xaar yoolu yomb na ñu ngi ci liggéey gars yi ku ci mel ni doomu den sita xam nga ak grand yëpp ñu ngi ñuy teg ci yoon. bilaay làmb ji bu fekkoon suba suba la allah ñun pere nañ waaw bilaay pere naa incha allah waaw no ñaan ma yàlla mu yàgg incha allah te maa ngi liggéey loolu tamit bëgg naa incha allah suñu jaamaarloowee bu neex yàlla ku xëpp sax doo gis jël bi waaw loolu laa koy indil waaw maa ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñun Déne Biram Ndao billaa ay champion ñoo fi nekk Omar Saliou ñun fii ay champion ñoo fi nekk lenn rek moo manqué wax dëgg yàlla muy jàppale bi loolu kese kese kese kese te mbër bu ñu koy wax jàppale moo tax mën nañoo bëri duniyaa ngi fii dañuy entraîné bay bëgg dee bay caas billaahi dañuy entraîné bay caas mais jàppale bi daal wax dëgg yàlla ñu ngi ciy woo ñëpp di ci lancer appel ñu jàppale ñu ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp déen bi dam ndaw bi yëpp ñoo ngi leen woo ñu jàppale seen doom yi nii parce que ku ci nekk tamit xam nga sa doom nga am quoi parce que Balla Gaye loo ko faral foral mën na am xamu la loo ko faral faral tey bu daana du fanaan mais ñun ñi nga xamante ne bu ñu demee mu neex mu naqari fii la ñu fanaan lu ñu am ñoom lañ koy bokkal ñoo ngéntee ndoo di céetale ndoo waaw nañ ñu jàppale kon yàlla tax rek ñoo ngi woo ñëpp waaw di la sant bu baax tamit Omar Saliou maa ngi lay sant di la jox sa wàccuwaay bu baax baax yow gannaaw bu baax nga di ñaan yàlla yokkute si sa suite bi waa OSTV maa lay ñaanal mu dem bay nekk ay télé yu kawe kawe kawe incha allah yàlla mën na ko yàlla yàlla def ko ok. waaw ñu ngi yàlla julli si Seydina Mohamed waaw ñu ngi kontaan. ci déplacement bi ku ne xam na ni déen dafa sori waaye sa yéene mooy xale yi ñëpp xam leen waaw mais yàlla na yàlla mottali yéene bi waaw li tax nag ñu jël ci kàddu di wax mooy dañuy soññeewaat rek waaw ndax ku ne xam na ni làmb xale bu nekkee di di yëngu ci wàllu làmb dafa soxla ay jàppale waaw première euh, bi may njëkk a wax mooy monsieur le maire Ngagne Diop na jàppale xale yi parce que jàppale booy jàppale ay doomi jàmbur safewul da ngay jàppale say njaboot ba pare parce que làmb dafa metti xale yi ay borom jom lañ bu ñu demee Dakar dañuy wane jom mais jàppale bi moo fay feeñ kon il faut ñu jàppale leen mais mbër yi bu nekkee 15 mbër ngay jàppale 5 yi di bàyyi 10 yi loolu day xaw a doy waar te ñëpp bokk commune bi waaw kon. Euh, jot na ñoom ñuy jàppale xale yi parce que xale yi bëgg nañ làmb amuñu lu dul làmb te ay jàmbaar lañ boo leen fekkee si montagne yi si diñ yi fii bu ñuy entraîné danga naa ñii dañuy bëgg a dee mais buñ demee jàppale bi day xaw a feeñ tuuti kon nañ leen jàppale bu baax a baax a baax a baax ndax bay sa weyu tànk waaw jàppale xale yi dafa baax parce que xale yi ay borom jom lañ mànkoo nañ waaw ba pare di sant tamit bu baax a baax a baax ñi leen di jàppale ku si mel ni boggal waaw day jàppale xale yi bu baax a baax bu ku ci am combat rek da ciy sonn waaw da ciy sonn bu baax a baax a baax te jot na tamit xam nga moom mu mu fayeku waa jot na waaw parce que dafa sonn ci xale yi waaw ñu ngi sant ñëpp nag di gërëm ñëpp di wax ni ñun ñu ngi seen ginnaaw du ñu daw du ñu dàyyi te incha allah fa ñu dégg seeni morom dinañ leen fa dégg parce que ay xale lañ xale yi ñii man booy xool trent 32 ans laa am te xale yi samay rakkaati rakkaat moo leen ma kon ay xale lañu eh, kon ay xale lañ topp ñu sax si man kon ñoom ay xale lañ kon soxla nañu ku leen jàppale waaw dañ leen a war a jàppale déeni biram ndaw ñu bàyyi siisu bi te jàppale xale yi di jàppale ñii di bàyyi ñii nañu ñëw mbër boo koy topp ndax victoire bu amee defet rek doo ko topp te làmb daan ak daanu ñoo ànd fii mbër yi fi gën a mag di di toog seeni million tey ku si nekk am nga 4 defet wala 5 defet xam nga li ma la wax kon xale yi bu ñu nekkee di góorgóorlu tey bu ñu daanee daan ñëw daanu rek xale yi dañuy xaw a bàyyeeku tut te loolu du sport dañoo war a xool si tubaab yi loolu du sport nit da ko war a jàppale si bi muy nekk ay tolof-tolof nga jàppale ko xam nga li ma la wax ba mu mën a dem waaw man loolu laa amoon ci lu may wax ñu jàppale xale yi ndax ay borom jom lañ waaw Baye Mbaye nag moom am na combat mais ñu ngi koy ñaanal suñu borom defal ko ndam lu kawe parce que booy bu yaru la fii booy yi nga gis ni barki Seydina Mohamed bu fekkee ab yar moo leen di may bu fekkee moo leen di may kon xale yi du ñàkk dara parce que ñëpp lañ jox cër kenn benn mag mënul taxaw fii ni xale yi ña manqué nañ ma respect wala xale yi amuñu yar ñoom ñëpp ba ci sitta xam nga li ma la wax ñoom ñëpp am yar billaahi wallaahi xale bi benn mag fii mag bu ko bu mën a wax ne xale bi mos na ma manqué de respect na ñëw wax ko xale fii mosuñoo manqué respect benn mag dañuy joxe cër lépp lu ñaaw loo xamante ni sax boo leen ci gisee doo leen fa fekk lépp lu ñaaw bu bu amee rek doo leen fa gis xale yu yaru lan di ñaanal boggal nag moom yàlla suñu borom li mu yéene xale yi yàlla suñu borom mottali ko ñun ñun ñun parfois dañuy xaw a lulantiir mais moom du bàyyi booy ku siy bëri rek di nga ko gis seen ginnaaw te xale la moom tamit comme ñoom kon yàlla na ko yàlla jàppale may ko doole joo xamante ni dina mën a jàppale xale yi ñun xale yi lañ am barki Seydina Mouhamed ñooy suñuy Balla Gaye ñooy suñuy Tapha Tine ñun tiitoroowu ñu Balla gay tiitaroo ñu Tapha Tine ñun ñii lañ am ñii ñooy suñuy mbër ñii ñooy suñuy mbër yal leen suñu borom jox ay millions ndax sonn nañ ci yal na yàlla defal tawféex bu baax a baax a baax waaw di nuyu ñëpp nag waa di nuyu Siteu euh, sitt numéro de euh, Ibra mbay waaw moom combat bi passé da koo ñàkk mais biir di ñëw yàlla na ko yàlla tegaleel ay combat ay combat ci barki Seydina Mouhamed na tax ñu am c'est la première fois may wax si yu mel nii mais xale yi xam nga euh, booy wax sa doo ko tey waaw booy wax doo ko tey parce que ay borom jom lañ billaahi jàmbaar lañ yàlla leen yàlla teg loxo waaw te incha allah billaahi xale yi seen béré waneeguñ ko si télé waneeguñ ko li ma leen seetaan contact waneeguñ ko télé incha allah bépp mbër nag bu nekk si arène bi na nga préparé booy yaa ngi ñëw dal sa kaw waaw jaajëf yow nag ñu ngi lay ziar euh, ñu ngi lay ziar di la delloo ziar bu baax a baax waaw ndax euh, dakaar sori na comme ni ma ko waxee woon déen euh, dafa ruxe xam nga li ma la mais booy ñu ngi fi di daan seen doole di góor góorlu si làmb ji yow tamit yaa ngi ñëw pour bëgg leen jàppale kon yal na la yàlla jàppale yow ba fi ñoom Alaaji Njaay fi ñu toll ba nga am seefi bopp suñu borom àggale la fu kawe sa njort foo bëgg yegg rek yàlla la fa suñu borom yeggale ci barke Seydina Muhammad wasalaam.